alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina wa maulana muhammadin wa ala wa sahbihi wa man wala mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare te di leen ndokkeel di dénk sunu bopp te di leen dénk ragal yàlla ak topp ko te di leen fàttali di fàttali sunu bopp li tax sunu borom binduñu te moom mooy ñu jaamu ko ndax moom moo wax ni wama xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduun jaamu googu nag yonent bi sallallahu alayhi wa moo ñëw leeralal ñu ana na ñuy jaamoo yàlla mu nettali ci benn xadis boo xam ne dafa wax ni ngir jaamu yàlla am na juróomi ponk yoo xam ni faaw jullit bi matale ko ngir mu mën doon ab jullit ngir mën a jaamu yàlla subhaanahu wa taala ni ko yàlla bëgge bokk na ca ponk ya mooy li ñuy wax tawxiid te moom mooy seede ni amul benn buur bu nu war a jaamu ci dëgg jaamu ga di jariñ lu dul yàlla subhaanahu wa taala lañ ko war a def te bañ koo bokkaale dara teg ca ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndawam la dafee ñëw ngir gindi ñu teg ñu ci yoon comme ni ko yàlla subhanahu wa taala santaane kooku mooy ponk bu njëkk bi ñaareelu ponk bi wane ni jaamu yàlla gi daa war a wér mooy julli julli nag dafa màgg lool yàlla subhanahu wa taala am fu mu ko teg yonent bi dem ba gam-gamlee ko ak weddi yàlla wax ni bokk na ci li ñuy ràññaleeg ñoom mooy julli kon ku ko bàyyi rek mel na ni mag bu nga lislaam ku koy doxalit mel na ni yaa ngi jëmmal diine ji mu tegaat ci ponk boo xam ne loon war a waxtaane tey ji muy e, azaka azaka nag mooy ñetteelu ponk ci lislaam mu warloo jullit bu nekk war koo génne su ko amee mu nangu ko joxe bu nu xoolee ci alquranul karim bi nga xam ni mooy sunu tegtal mooy sunu delluwaay yàlla subhanahu wa taala lim na fa wàllu azaka lu toll ci juróom fukk ak juróom ñetti yoon yoo xam ni ma ngay soññee ci génne azaka ak joxe ko dem sax ba lëkkale ko ak julli nga xam ne fu mu tuddee taxawal leen julli da cay boole dangeen ngeen génne azaka wa aqimu salaata wa aatu zakaata la ciy teg loolu rek boo yéree ci alxuraan ni nga fa fekk ñaar fukki yoon ak juróom benn yoo xam ne yàlla e, tudd na ko ca nga xam ni kon ponk la boo xam ne bu rëy rëy rëy la ci lislaam yàlla subhaanahu wa taala digal ñu ko bam ñu koy digal digaluñu ko ngir bëgg lu ñu metti wala joxe loo xamante ni si day diis ci yow waaye lislaam da koo indi ngir am lu muy xeex te moom mooy ak ñàkk lislaam ñàkk ci boppam yàlla bind na ko waaye dafa jox nit ñi am xel ak tëralin goo xam ni suñ ca doxalee duudul amati ci gox ba nga xam ne moom lañ dëkkee loolu nag bokk na ci li koy gën a saafara azaka da caa bokk donte nag lislaam teg na ay mécanisme yu baree bari yoo xam ni yëpp dafa jëm ci wàllu xeex ñàkk ak dimbalante ba jullit bi nga xamante ne si amut lu bari du sentir du yëg boppam ni moom kat lottu na ci faj ay soxlaam mbaa su tawatee lottu na ci mën a faj boppam su bëggee dund it lottu na ci jóg dundam ndax société bi dañ koy organiser organisation boo xam ni ki oomal lu baree bari bari day génne ci la ko sunu borom jox mu sedd ci ka nga xamante si moom la xañ ba kooka du dul yëg ak ñàkk ca moom organisation boobu la lislaam indi eh, ci wàllu azaka waaye it yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ko ko yàlla di digalit ngir bëggoon société boo xam dafay am équilibre maanaam société bu diggu doomu boo xam ni ña lool dañuy mën a fekk si ñi nga xamante ne si dañ leen xaw a danoo xañ ñu mën leen a jàppale bu baax a baax ban mën a dund ci jàmm waaye noonu it lislaam dafa teg ay tëralin yoo xam ni ak ay dige ci képp koo xam ne yaa ngi génne azaka mu am lum la ca wax loo xam ne boo koy def sa xel di dal mu leer na ni perto ndax génne alal mu dem amaana nit ki su ko déggee dana jàpp ni li dem du ñëwaat waaye fekk na booba la dem mooy ful li fi des te it mooy rafetal mooy taaral mooy sellal alal ji nga xamante ne si des na fi ndax néew na lool nit kuy fàggu alal jàpp ni lépp jaar na ci yoon wala sell na amaana mu am ay rëcc-rëcc yoo xam ne dugg na ca te yëgu ko waaye azaka jooju muy génne mooy raxas loola te la ca des it moo koy barkeel boole kook azaka génne gi day tax nit ki sunu boroom da koy musal ci mbugalum sawara nga xam ab jullit moom euh, saa su nekk ak mbébétam mooy ëllëg yàlla subhanahu wa taala ko àjjana musal ko ci sawara am na xadis boo xam ni abu ayub al ansaari kenn la woon ci saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa yàlla na ko yàlla yokk ngërëm dafa nettali ni am na benn waaye ju mas a ñëw ci yent bi ni ko dama bëgg nga xibaar ma jën jëf laa mën a def mu tàbbal ma ajjana xeetu laaj yooyu saxaaba yi daan nañ ko bari luñ koy laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ñoom bokkoon nañ ci seenu xemmemtéef ak seenu mbébét mooy tàbbi ajjana moo tax daan nañ laaj xeetu laaj yooyu yonent bi ni ko yan jëf mooy loo xam ne suñ ko defee daal dana yomb ba pare dana sell ñu mën caa jaare ba tàbbi àjjana yonent sallallahu alayhi wa sallam ni ko deel jaamu yàlla te bañ koo bokkaale dara nga xam ne loolu moom mooy sart bu njëkk bi nit day jaamu yàlla te xam ne yàlla moo ko bind suy sukkandiku ci sunu borom lay sukkandiku suy ñaan it yàlla lay ñaan xam ni kudul moom moom rek moo man lépp te moom moo am lu ne mu ne ko kon da ngay jaamu yàlla te bañ koo bokkaaleeg dara ba ca topp mooy ngay taxawal julli julli fu mu jotee rek nga def ko nan ko bëggee ca ca waxtu wa ak ca saasa ni ko alxuraan waxee inna salaata kaanat alal muminina kitaaban mawquutan yonent bi teg ca ni ko wa tuti zakata ngay joxe azaka mooy ni ko boo yoree loo xamane ni mat na génne azaka ni nga di ko génnee joxe ko ñeenteel ba mooy watasilu rahim ngay jokk ak mbokk ñeent yi daal la ko yonent bi sallallahu wax ni ko boo ci boo ci saxee sellal ko moom ëllëg moom àjjana moom da nga ko am te moom mooy taabudullaha wala tushriku bihi shay'an ak wa tuqimu salaata wa tuuti zakata wa tasilu rahim ñeent yooyu bu ci jaam bi saxee te di ko sellal comme ni ko yàlla digle ak yonent bi sallallahu alayhi jàngale ko loolu moom danga dugg àjjana azaka yi dafa nekk eh, yoon woo xam ni dafay sellal ak alal di ko barkeel xam nga ni yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla daf koo diggal ni ko demal ca ñoom nga jël ci seeni alal mu doon azaka doonu sarax nga yóbbu ko ci foqara yi ak ñi ko soxla su ko defee alal joojee dana barkeel te dina sell xuz min amwalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakkihim biha génne azaka it dafa nekk jikko joo xam ni su ko nit ki dee def dana làmbook jikkoy ragal ragal yàlla yi muy nit dee almuttaquun te loolu moom kenn ku ci nekk bëgg na caa bokk ndax yonent yi sax daan ñaan yàlla boole leen ci muttaqin yi kon génne azaka yoon la goo xam ni day tax jaam bi bokk ci ñooñu nga xam ne ñoom la yàlla subhanahu wa taala di tagg te moom mooy ñi ñi ko ragal te ñi ko ragal moom boo demee ci sootu zumar sunu borom dafay nettali ni ëllëg dañ leen di wommat jëme leen àjjana wasiqa alladina taqaw rabbahum ila aljannati zumaran kon ñooñu boo bëggee bokk ca ñooña mooy di génne azaka da cee da cey da lay cay boole moo tax borom bi wax ni inna almuttaqiina fi jannatin wa uyuun aaxidiina maa aataahum rabbuhum innahum kaanuu qabla dalika muxsinin kaanuu qalilan min alleyli maa yahjacuun wa bil asxaari hum yastaxfiruun wa fi amwaalihim xaqun lissaa'ili walmahruum ñooñu mooy ñi nga xam ne bokk nañ ci ñooña te mooy ñi ragal yàlla subhaanahu wa taala boole koog di jëf-jëf ju rafet di dimbalante seen biir ñooñu mooy ñi daan tëdd guddi ba ci yàgg ñu tiit jóg jàkkaarloog seen borom di julli ak def ay istixfaar ak jàng alquranul karim mu ni ñooñu tamit day seen alal dañ cee génnewoon loo xam ni moom la ñuy jox ñiy laaj muy li saail wal mahrum ak ñi nga xam ni amoon nañu waaye dañoo dem ba mu gi ndok dal leen ñu war a lekk azaka yàlla nee na ñooñu day bokk nañ ci ñi may tuddee almuttaqun génne azaka dafa bokk ci sabab ngir am yërmaande ak sunu borom subhanahu wa taala xam na ni jaam bi jullit bi soxla na lool yërmaande yàlla ndax yàlla da koy wax ni sama yërmaande day yaatu na waaye nag na leen biir ni ragal yàlla rek laa koy jox wax nañ ni génne azaka dafay tax bokk ci ci ragal yàlla wa rahmati wasiat kulla shay'in wa sa aktubuha lillazina kon ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla ñoom ñoo moom yërmaan suñu sunu borom googee te ñooñu nag bokk na ci ñiy génne azaka ndax yàlla dani wal muminuuna wal muminaatu baaduhum awliyaau baadin yamuruuna bil an il munkar wa yuqimuuna alsalaata wa yutuuna alzakat wa yutiicuuna wa rasulah ulaika sa yarxamuhum allah inna allaha azizun hakim jullit yu góor ñi ak jullit ñu jigéen ñépp ñi nga xamante ne si dañuy diglante lu baax di terante sofaan di taxawal julli di joxe azaka di topp yàlla comme ni ko yàlla subhaanahu wa taala diglee di topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal gim leen jàngal lislaam ni ñu koy joxe te yàlla subhaanahu wa taala wax ni lépp lu leen yonent bi jox ni ngeen ko jël wa ma aataakumu rasuulu fa xuzuuhu wa ma nahaakum anhu fantahu nee na ñooñu ne nga xamante ne si dañuy joxe azaka tamit teg ci nee na yàlla dana leen yërëm moom yàlla mi nga xamante ne si azizun xakimun bokk na ci sabab bi génnee azaka li muy jox doomu aadama mooy yàlla daf koy faral ay bakkaaram xam nga ni doomu aadama yàlla daf koo bindee mën a fàtte ak it léeg-léeg mu juum njuumte yooyu nag day nekk yoo xam ne xëy na mën na kaa fàtte ni yëg ni def na bàkkaar waaye génne gi muy génne azaka day tax moo faral ko bàkkaar yooyu nga xamante ni si yëgu ko woon moo tax yàlla wax yonent bi sallallahu ni leen nee leen day su ndee taxawal julli di joxe azaka gëm sama yonent yii jàppale leen dëgëral leen boole kook di ma di ma lebal man yàlla su boobaa day nanu xam ni warloo naa leen ngir faral leen seeni bàkkaar te bu ëllëgee dinaa leen dugal àjjana joo xam ni te suuf sépp ay dex lay doon waaye nag lii may wax képp koo xam ne weddi nga weddi nga ni du am na la leer na leen jaar nga ci yoon woo xamante ne si du yoon wu jub la in aqamtumu salaata wa aataytumu zakaata wa amantum bi rusuli wa azaztumuhum wa aqradtumu allaha qardan xasanan la ukaffiranna ankum sayi'aatikum wa la udxilannakum jannatin tajri min taxtiha al anhaar fa man kafara baada dalika minkum faqad dalla sawa sabil noonu la ko sunu borom subhanahu wa taala waxe génne azaka bokk na ci li muy wanal ki koy def mooy ëllëg moom yowmal qiyaamati du am lenn loo xamante ne si lu koy lu koy tiital la wala lu koy jaaxal la te yowmal qiyaama yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nettali na ni lu raglu la ci anam yi nga xam noonu lay demee état bi muy jaar yépp ginnaaw ca bansu ba ba ca xisaab ba ba ca siraat ba ba ca taxawaay ba xisaab ba loolu lépp dafa nekk ay mbir yoo xam ne yu raglu la waaye ñi nga xam ne dañ daan génnee asaka ñuy ñooñu bis boobee loolu du leen dal moo tax yàlla wax ni seeni commerce ak seeni njënd ak jaay ak seeni faggu alal bu mu leen taxa mukk mukk mukk ngeen sàggane julli ak génnee asaka ndax loolu day soo leen ko defee fitna la leen di diggal waaye nag su fekkee yéen a ngi koy def day ëllëg doo leen gis lu leen ragal rijalun la tulhihim tijaratun wala bayun an dikrillah wa iqaami salaati wa itaai zakat yaxaafuuna yowman tataqallabu fihi alqulubu wal absaar bokk na ci azaka li mi jëf doomu aadama ji mooy dafay tax nit ñi dañ koy sopp maanaam doomu aadama yi dañ koy bëgg te dañ koy ñaanal ndax saa su ne dañ koy ñaanal ak ak yokk waaye nag baax na lool it ñu xam ana nan la ñuy génnee asaka ak kan moo ko war a génnee ak kañ la koy génne asaka lislaam daf ñoo xamal ni nu koy defee nekkul loo xam ni ijtihaadu doomu aadama la wala yitte doomu aadama moom moo ko tegal boppam comme ni nga xam ne moom la amee ci suñuy tëralinu àddina nga xam ne dañ naan état mooy teg impôt wala moom mooy wax ni nangam ak nangam boo ko amee nangam ngay joxe waaye lislaam moom yonent bi sallallahu alayhi wa moo jàngale ni ñuy joxe azaka dafa war ci alal alal ji nga xam ne moom la nit ki di liggéeyee ba yegg ci benn dayo bi wala ci ak jur wala ci gàncax dama mooy li mu bay yooyu ci la ñuy génnee azaka moo tax yàlla subhanahu wa wax ni yéen ñi nga xam ni day dangeen a gëm yàlla bokk ci ñi gëm na ngeen génnee azaka ci li teey li nga xamante ne si yéen a ngi koy faggu te moom mooy lu lew ak li nga xamante ne si génne ngeen ko ci biir suuf si te mu doon am mbay te nag ngeen bañ a jël li nga xam ne soxlawu leen ko génne ko jàpp ne loolu moom mooy génnee seen azaka déedéet waaye da ngay génnee lu diggu doomu nee na loolu de boo leen ko dee def da ngeen bir ni yàlla subhanahu wa taala ku woom la leen fàtte ba mukk yaa ayuha alladina amanu anfiquu min tayibaati maa kasabtum wa mima axrajna lakum min al ard wala tayamamu alxabiisu minhum tunfiquun wala tayamamu alxabiisu minhu tunfiquun walastum bi aaxizihi illa da ngay jox nit ki ba bu ëllëgee mu toog di xaaraat azaka ñëwaat mu ngir mu mën a fajaat soxlaam déedéet lislaam doxewul noonu lislaam daa bëgg ku lekk azaka ñaari yoon ñetteelu at ga ngay joxe azaka association boobu nag ñuy wax alxikma wala xikma ñoom ci anam googu lañ koy lañ koy doxale maanaam dañu fexe ba identifier ñi nga xamante ne si soxla nañu azaka war nañ leen dimbali ñu taxawu leen ba bu ëllëgee ñooñee da leen gis yow mi génne woon azaka ñoom da nga leen di gis ñoomit ñuy xëy di génne woon azaka ndax dañ leen teg ci aw yoon jox leen lu am lu am solo loo xam ne dinañ ci mën a def ab départ waaye du caage di nit ki day dajale xaalisam rek génne ko ku ñëw mu jox la junni mbaa mu jox la ñaari junni nga lekk ko baa nga dépensé ko ba mu ëllëg nga togg di xaaraat lislaam waxul ni nan génnee noonu azaka omar ibnu abdul aziz doonoon wax ni moom mooy juróomeelu xulafa u rachidin bi yàlla dogalee mu ñëw doon amirul muminin ci e, dawla amawiya li mu njëkk a def mooy fexe ba xeex li ñuy tuddee pauvreté mooy ñàkk mu tàmbale ko nag ci boppam ak njabooti boppam soxnaam si nga xam ni doomu buur la woon euh, doon ne woon ci baayam ay or yu baree bari bari ak yu baree bari ak ay maamam bi mu ñëwee dafa nangu loolu lépp ni ko nag lii nga doon donne ci say maam na nga xam ni yu nit ñi la woon sa maam xeex ak ñoom nangu ko waaye moomu ko kon dañ koy delluwaat ci baytu maalil muslimin ñu jël ko natteeg ci génn ci azaka joxe ko ñi ko yoyoo ba mu ko defee nit ñi am nañu ko ci mere ci mbokkam waaye ban dawalee ñaari at xam nañ lim nekkoon mooy li woon yoon maanaam ci boppam la ko tàmbalee ak njabootam loolu nag message bu foor la ci képp koo xam ne yaa ngi jiite rawatina sax nga jiite am réew mbaa am gox ci lépp loo xam yaa ngi koy defar nga tàmbalee ko sa bopp ak sa njaboot ci noonu la def ba dajale alal ju baree bari nga xam ne dem na ba baytu maalil muslimin mu li ca nekkoon ci alal moo ëppoon budget état bi muy daw la dawla amawiya xamoon ne dem na ba ba ku ñàkk amatul ca ca dëkk ba daan nañ wóor ci monde islamique kun jox azaka waaye du ñu gis kun ko jox dañ ko daan mujj di ko def ay pepp di ko jox giléem yi mbaa ñi nga xamante ne si bokkuñu sax ñoom ak diine di leen ko yóbbante mu doon ay ndimbal ci ñoom kon loolu tëralin la woo xam ni kenn ku ci nekk war na cee jànge lu baree bari alhamdulilah am na réew yoo xam ne nag wax dëgg yàlla taxaw nañ ci ba gis ci njariñ lu baree bari bari suñu ci doon jox exemple réew mu mel ni Malaisie wala réew mu mel ni Kuwait ba ci Jordanie gi gis nañ ni ñoom azaka taxaw nañ ci taxawaay boo xam ni société bi ñoo ko organiser seen bopp ay kuréel yu mel ni kuréel yi ma fi tuddoon taxaw informer nit ñi nit ñi nangoo dem ca ñoom gis leen waxtaan ak ñoom xamal leen ni ñun dey suñu alal nangam la toll ñu bëggan caa génne asaka jox leen ko yéen ngeen ci anam yi ñu ko dugale ñooñu tey jii bu dee réew mu mel ni Malaisie azeka dajale woon na lu ëpp budget état bi xam nga ni loolu kon jéggi na jéggi na jéggi na fuuf ndax état ku ne xam na ni budget mu ngi koy jëlee ci ay impôt ak yi taxe yoo xam ne nit ñi ñoo koy joxe waaye eh, azaka bu demee ba ëpp budget état kooku kon xam nga ni lislaam teg na foofu tëralin goo xam ni ngir xeex ci wàllu wàllu wàllu pauvreté la bu fekkee ci réew mu mel ni eh, imaaraat muy les arabes les émirats arabes unis ñooñu tamit demoon na ba mujj gi euh, képp koo xam ne gàddu nga nationalité dëkk boobu mënatoo lekk azaka ndax fexe nañ ba ba xeex li jëm ci wàllu pauvreté te ñu ngi ko jaarale fen fudul ci azaka rek lañ ko jaarale dem na it ba mutuel de santé yi nga xam ni nit bu amee ordonnance mu war nu mu nu mu mën a toll azaka moo koy jënd nu mu mën a toll nga xam ne amatul tiit ngir dem hôpital wala amatul tiitaange ngir jënd euh, ordonnance wala dara waaye azaka ji moo taxaw ngir taxawal ko ci lu mel noonu àgg na sax ba ci nit ki nga xam ne da liggéey ba liggéeyam yàqu mu soxlawaat départ capital boo xam ni ci lay tax mu mën a jaaraat azaka moo koy jëlaat joxaat ko capital bu ëpp ba mu amoon mu jaaree fa continuer di liggéey ba mu gi moom it muy joxe azaka maanaam mécanisme yooyu la lislaam teg ngir xeex wàllu wàllu wàllu wàllu pauvreté bu nu xoolee suñu réew mii da xam ni eh, am nan ko te mën nan ko yit ndax azaka mën na fee liggéey loo xam ni budget état dana ko ful ay yooni yooni yooni yoon waaye dafa laaj organisation ak it aussi information ak tamit nit ñi di dem di seet ci kuréel yi nga xamante ne si ñoom ñoo saytu wàllu woowe ndax nag azaka du yow mi nga xamante ne si yaa yor alal ji yaa ko war di génnee di ko séddalee nu mu la neexee déedéet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko wax ni ko xuz min amwalihim kon kon kon imam bi wala kii sarto loolu moo war a dem ci moom ni ko kat nangam nga war a génne azaka mën na ko bañ a xam sax capitalu xaalisam waaye mën na ko ko jàngal xamal ko ni ko daal nangam su ko amee nangam moo ci génnee ci xaalis pourcentage bi daal deux virgule cinq pour cent la ci nga war koo génne azaka sax dafa war ci jigéen ji nga xam ni dafa yor ay takkaay yoo xam ne dafa jéggi dayoo maanaam mu am ci ay or lu baree bari loo xam ni euh, wér na ni lii moom nekkatul rekk wàllu takk waaye bis mu soxla woon xaalis it da koy jaay jëfandikoo ko asaka su boobaa day war ci ci or boobee saa bu matee quatre-vingt-cinq gramu or war nañ caa génne nangam ci pourcentage loo xam ni boroom xam-xam yi ñi yor ci wàllu woobee yor nañ ko Euh, dinañ ci tudd ñenn rek tey ci mel ni xikma ku fa demoon ku mel ni gisoon al imam sëriñ xadim Moustapha Abdourahman Lo ak ku mel ni Cheikh Mouhamed Bachir Faye ñu mel noonu ñu ngi yor euh, mbir moomee di ci di ci taxaw di ci liggéey liggéey bu am solo boo xam ne ngir jàppale jullit ñi ak tamit taxawu euh, njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa ci wàllu azaka ndax it ku ne xam na ni réew mi Eh, wàll woowu xaw na fee xaw na fee sooxe lool lool lool lool nit ñi ni nu ni nu fonkee julli eh, eh, fonkee ko ah, des na ci fonki ni azaka te yàlla subhanahu wa kat wax naa ni fu mu tuddee julli taxawal julli taxaw joxe azaka la ci teg aqimu salaata wa yu zakat na salaata wa yutuuna zakat kon ñaar yooyu dañoo lëkkaloo ànd abubakarin siddiq bokk na ci xeex bi nga xam ni xeex na ko ak ñi lànkoon bañ a joxe azaka bii ginnaaw bi yonent bi sallallahu alayhi wa faatoo génne àddina ñoom ñi dañoo lànkoon ni du génne azaka waaye mu woo Omar ni ko ñii dey dinaa rayanteeg ñoom Omar ibnu Xataab ni ko ana nan ngay rayanteeg koo xam ni mu ngi wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah nan ngay rayanteeg koo xam ni bu waxtu julli jotee dina yëkkati ay loxam wax allahu akbar di rukkoo ak sujjóot mu ni ko waaye azaka dafa bokk ci ponk yi képp koo xam ne lank nga koo joxe danaa xeex ak yow ba keneen nga koy joxe noonu la ko waxee ni ko sadaqta yow day li nga wax dëgg la kon nag ñu ànd ci yow mu xeex ak ñoom ba ñu commencé joxe azaka ndax it ne yonent bi da ko waxoon umirtu an uqaatila naasa yàlla daf ma digal ma xeex ak nit ñi rayanteeg ñoom ba kere ñuy gëm yàlla di taxawal julli di joxe azaka kon azaka képp koo xamante ne si joxewu ko lislaam day sàkku nag ñu xeex ak yow bu laajee sax rayante ak yow dañ koo war a def ci ki nga xam ne dafa lànk ni du génnee azaka ci noonu nag lislaam tëral na juróom nit ñoo xam ni ñoom ñoo yayoo azaka ji juróom-ñett yooyu nag li ma ko waxee amaana nit ki nekk ci wàllu alalam mën naa bañ a xam ñooñe ñooy ñan waaye bu ko yóbbee ci kuréel gi nga xam ñooy saytu azaka ndax bu dee ci réew yi lislaam yi ñoom état mu ngi leen di jàppale ci ñu xool nan la tëralee pour laaj wàllu woowee waaye comme nag ñun dañoo yor ay état yoo xam ne dafa am li ñuy tuddee séparation ak ñoom ak diine ji maanaam pouvoir bi ak religion bi danoo xaw a séparé wu état du dugg ci wàllu diine loolu nag jullit ñi kon ñoom ñoo war a jëlal seen bopp responsabilité taxawal wàllu woowee di ko di ko di ko doxal ñooñu juróom-ñett lan yàlla subhanahu wa taala ci njëkk a tudd mooy lil fuqara faqir nag euh, ñi làkk arab dañ ko firee ni mooy ñi nga xam ni daal danoo ñàkk amuñu euh, mënuñoo liggéey mënuñoo tamit daan seen doole ci dara waaye ñàkk am am na dal ak ñàkk goo xamante ne si nen na ci ñoom ñooña nee na bu ñuy dimbali bu ñu leen fàtte mu ne nag wal masaakiin miskin nag mooy ki nga xam ne moom wax dëgg yàlla mi ngi liggéey waaye nag la muy am taxul mu doy ko ñooña nag ñu nga tegtaloo ci aaya bi nekk sootul fi ci wa amma safinatu fa kaanat li masaakiin nga xam ne gaal googu kon ay miskin ñoo ko moomoon doon ci liggéey waaye nag benn gaal lu war a mat fukk wala ñaar fukki miskin bokk ko loolu xam nga ni kon kenn ku ci nekk lam cay am taxul mu mu koom taxul mu bari waaye nag ñoom ña ngay liggéey waaye kii liggéey masalan di gagné deux cent mille par weer wala cent cinquante mille par mois war a def location fay ci soixante quinze mille scolarisation des enfants soog a ñëw dépense am transport am fa muy liggéeyee wàllu soxnaam xam nga ni kooku soo ko génnee ci li muy am par weer kooku euh, dana dana dana sonn lool kooku nag soo ko xoolee ba jàpp ne wattu lekk azaka su boobaa yaa ngi koy teggi te yaa ngi koy yaa ngi koy sonal kon kooku ci ñi ñu war a jox la bokk loolu nag amaana yow miy joxe xëy na doo ko mën a gis waaye kuréel yi nga xamante ne si ñoom xam nañ ko identifier ñooñu boo fa indee sa azaka dinañ ko mën a jox ñooñee ba bu ëllëgee ka daan ko fanweeri junni wala ñaar fukki junni ak juróom su lekkee azaka ñaari at ñetteel ba moom ci boppam na ngay génnee moom lay génnee bokk na ci ñi ko war a lekk it mooy ñay liggéey ca wàllu woowee ñi nga xam ne dañoo bàyyi seen lépp seen yitte yëpp di liggéey ci wàllu asaka di ci di ci sonn di xool ñi ko war a lekk ak it di dem ca ña koy joxe jël ko ca ñoom di ko séddale ci anam gi nga xamante ne si moom la moom la laaj xam ngeen ni euh, zakat house bi fi nekkoon muy te mu nekkoon Kuwait amoon nañu baree bare ci waa Sénégal ak ñu nekkul sénégalais sax daan liggéey ci ci ci ci ci ci association boobu muy Zakat House nga xam ne da leen daan fay lu baree bari bari te loolu lépp alal jooju du état moo leen koy jox du organisation non gouvernementale yi ñoo leen koy jox waaye nag jullit ñi ñoo koy génne muy loo xam ne yàlla subhanahu wa taala moo leen ko sant ñooñu dañ cey dañ koy jëfandikoo ak ñi nga xam pour dalal seenum xel moom ni tuddee al mu muallafati qulubuhum mooy ñi nga xam ne ñu ngi soog dugg ci lislaam amaana dugg nañ ci lislaam seeni mbokk beddi nañ leen faaleetun leen que leen daan dimbali ci seen famille duñu leen dimbali dana àgg dana àgg sax ci uh, liggéey ba nga daan liggéey ka ko moom nga bokkoon ak moom diine xëy nga tey nga génn ca amaana mën na laa dàq su boobaa nag lislaam day taxaw moom it wane boppam Euh, wane ak pànkam nag ci côté boobu jàppale kooku bu baax a baax a baax ba balam doon am fële du du ko am ba xëy na sax euh, mu mën a soññi ñeneen ñoo xamante ne si ñanga pour xamal leen ni leen kay diine ji la joo xam ni ah moom day ni mu lay dalalee dal nam xel ndax jàppale ga fa nekk day mosuma koo gis nee na ñooña bokk na ci ñi nga war a jox azaka wa fi riqaab muy nga xamante ne si ay jaam lan loolu nag amatut waaye ci jamono yi